أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجي ci dars yu mujj di dund yonent yàlla ibrahim alayhi salaatu wassalaam ñaari dars moo des wala ñett sasul ambiya dund ibrahima daal di jeex tey ñu ngi jël wa azim bi nnaasi bilhajj yaatuuka rijaala ibrahima ginnaaw bi ko yàlla tabaraka wa taala sante ne ko tabaxal kaaba gi mu tabax ko ba pare ci la ko yàlla jox ndigal nag ne ko wooteel woowal nit ñi wa azin fi nnaasi bilhajj woowal nit ñi nañu aj si nañu ñëw jaamu si yàlla tabaraka wa taala ibrahim yàlla nangulal na ko wooteem mooy bi mu taxawee mu woote yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj ñëw leen aj fa jaala al bayt allazi banaahu qiblatan lil muwahidin yàlla def na néeg boobu ibrahima tabax yàlla def na ko mu nekk qibla mu nekk jubluwaay pour ñi nga xam ne ñoom ñooy wéetal yàlla ñooy kennal yàlla ñoom ñoo am tawxid yàlla def na néeg mu nekk néeg boo xam ne néegu jubluwaay la néeg bu ñuy jaamu yàlla la pour ñi wéetal yàlla waaye mu nekk wa mahwa afidatul muminin mu nekk tàppuwaay pour xolu jullit yi ñi gëm yàlla néeg boobu Ibrahima tabaxoon seen xol daf ko mujj bëgg ginnaaw ba mu nekkee seen jub seen jubluwaayu xibla bu ñuy jublu waaye mu nekk làqatukaay pour ñu ragal yàlla tey soo fa demoon da ngay fekk jumaa ji fees del del del biir ak biti soo ko jógee nga yegg si fii su aj bi jotee tey nga bëgg a delluwaat ki bëggul dem moom kenn waxul mbiram soo ko laajee loo bëgg rek mu ne la yii waxuma laag nag ki nga xam ne dem na benn yoon ñam mbir mi wa damana allahu jalla wa ala li sukkaani al bayt ar rizq wal amn yàlla moo garantil ñi dëkk foofu ñi dëkk ci gox boobu yàlla moo leen garantil ñaar dund ak sécurité loolu ñoom fu ñu ko amee ci ñaanu ibrahima alayhi salaatu wassalaam yàlla garantil leen sécurité waaye yàlla garanti leen lan wërsëg falyaabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf yàlla ne nañu jaamu borom néeg bi moo tax nit ñi dañuy def erreur chaque jour tabax yi moquette yi ah kenn du jaamu néeg bi waaye borom néeg bi la ñuy jaamu léeg-léeg nga gis ku ñëw ci benn barab bu benn kilifa doon toog di wéeru muy ñëw ñu ne ko fii la doon wéeru nga gis mu commencé di raay di diw karo kese ngay raay karo rek laaloon nit ki de moo tax loolu nekk bokkaale lañ gis ay nit ci jamono aj ñu jël seeni sijaada ak seeni yére eh ñoo leen fii amul tëdd fii ñoo leen ñoo leen ñoo leen fi jege si leen ñëw leen fii ñëw leen bu ñu taalee tele kenn du nelaw bu ñu def dars rek ngeen commencé di xaran seytaane dugg leen ragal leen yàlla mbokk yi ragal leen yàlla tele moo leen gënal yàlla tele mbokk yi nanu ragal yàlla day gis kuy nelaw fii ñu yee ko taal tele bi mu yeewu te dañ ko ne woon demal tëdd yaa ngi nelaw mbokk yi nan ragal yàlla waaye leen yàq suñu dars waaye kon ibrahim yàlla moo ko garantil lan la ko yàlla garantil ñaar yàlla moo ko defal mooy yàlla defal ko ci néeg bi mu tabax ñi dëkk ca wetu néeg ba yàlla defal leen sécurité waaye yàlla garanti leen wërsëg lu ñuy dunde yàlla moo ko yore qaala taala awalam numakkin lahum haraman aminan yuttaba ilayhi samaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aksarahum la ya'lamun yàlla mu ne waaw yéen ñi dëkke màkk ak li ko wër est ce que defaluma leen xaram est ce que defaluma leen benn place boo xam ne place bu ñuy sell la yàlla la di ko fa wéetal ma indi fa bépp xéewal bépp fruit buy ñor ci àdduna bi boo demee màkk fekk ko fa te kenn du ko fa bay au contraire sax yi gën a baax ci àddina bi lañ fa indi kenn du fa indi yu puj puj yi yi gën a baax lañ fa indi borom bi tabaraka wa taala mu ne yàlla nangul ibrahima ñaanam yàlla def njabootam mu nekk umma muslima ñaanoon na ko rabbana wajalna muslimayni laka yàlla def ma mën ak sama doom ñu ñaar ñu la jébbalul waaye bépp njaboot bu war a génn ci ñun yàlla na nga ko def mu nekk xeet wu jaamu yàlla du bokkaale yàlla nangul ko loolu yàlla defal ko moom ibrahim ak njabootam ñu nekk xayet woo xam ne dañ ko jébbulul moom yàlla yàlla yónni ci xeet boobu nga xam ne moo doon arab yi foofu ñu tabax kaaba gi yàlla yónni ci ñoom rasulan minhum benn yonent bu bokk ci ñoom yuallimuhumul kitaaba mu leen di jàngal téere bi te mooy alquran wal xikma mu leen di jàngal sunna wa yutahiruhum mu leen di laabal min ashirki ci bokkaale tabaraka wa taala wasail arjas ak mbooleem lépp loo xam ne sobe la loolu mbokk yi xéewal weesuwu ko xéewal gënta màgg ab yonent ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may njabootul islaam yàlla may ko waaye yàlla def ñaan gi mu ñaanoon ne yàlla yàlla na nga yónni ci dëkk bi yonent boo xam ne da leen di jàngal téere di leen leeralal sunna di leen setal ci bokkaale ak ay salte ak ay tilim yàlla daal di koy nangul loolu kan mooy yonent boobu wa kaana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam huwa hada annabi yonent yàlla muhammad mooy yonent boobu ibrahima ñaanoon ne yàlla yàlla nga yónni ci dëkk bi waa juy laabal dëkk bi ci bokkaale hada annabi muhammad alladi xatama allahu bihi ambiyaahu wa rusulahu yonent bi nga xam ne yàlla mottalee na yonent yi ak ndaw yi yàlla yotte na ko mottalee na ko yonent boobu waxtaarahu llahu min waladi ismail alayhi salaam yàlla tànnee na ko moom yonent boobu mu bokk ci doomi ismail te doomi ismail mooy doomi ibrahim ndax ibrahim kan mooy baayam ismail kuy papam ismail ibrahima mooy papam ibrahima moo jur ismail ismail moo jur yonent bi ndax ismail mooy maamu yonent bi moo tax ñaanu yonent yàlla ibrahim bi mu ñaanoon moom la yàlla tabaraka wa taala moo tax moom yonent mu ne ana daawatu abi ibrahim ci hadis bu wér hadis boo xam ne sahih rawahu ahmad imam ahmad moo ko solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana daawatu abi ibrahim man maay ñaanu sama baay ibrahima ñaan li mu ñaanoon man la waaye wa bisharatu isa man maay ki isa bégle woon ci jamono daan ne ya benn yonente dina ñëw ci yoon inni mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad ahmad moomu isa doon béggale naan am na yonent buy ñëw bu tudd isa mu ne man la waaye yonent boobu ibrahima doon ñaan mu ne man la yemu foofu de mu ne wa ruya man maay gént bi nga xam ne sama yaay géntoon na ko wa ruya ummi maay gént bi sama yaay géntoon ne gis na benn leer bu génn ci moom sama yaay leer googu gis na ko mu génn di leeral ay château saam wa ru'yatu ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun ada'at lahu qusuru sam man maay ñaanu baay ibrahim maay bégal bi isa ñëwoon doon bégle man maay leer googu sama yaay géntoon mu génn ci moom di leeral ay sotoy saam mu ne man la ñetti yépp ñetti yépp yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ñaanu ibrahim moom mooy ki isaa doon bégle moom mooy ki yaayam géntoon leer googu yaayam géntoon wa taqabala allahu min ibrahim alayhi salaam yàlla nangul na ibrahim fa araahu lmanasika kullaha yàlla won ibrahima nu ñuy jaamoo yàlla ci kaaba gi kaaba gi bi ko ibrahima tabaxee ba pare yàlla daf koy won daf ko won kaaba gi naka lañ ma ciy jaamoo wa amarahu an yuazzina fi nnaasi bilhajj yàlla digal ko na woo nit ñi ñi ñëw aj fastajaaba allahu nnaas fastajaaba nnaas li hada nidaa nit ñi daal di wuyu si woote boobu wa axasu min kulli makaan yaatuuna min ila l bayt illahi alharam rukbaanan wa mushaat nit ñi commencé sotteeku bi ibrahima ne yéen nit ñi ibrahima du mu tabaxee kaaba gi ba pare yàlla ne ko ibrahima wool na ñuy ñëw aj mu ne yàlla ñan laay woo fii ay xeer kese ñoo fi nekk ay montagne gisuma fi nit man maa fi nekk maak sama doom ibra ismail ak sama soxna saara kan laay woo yàlla mu ne ko ibrahima demal nga yëg ci montagne bi nga woo nit ñi nga ni ñëw leen aj rek nga ni yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj ñëw leen aji ibrahima taxaw ci montagne bi daa di yuuxu yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj ñëw leen ngeen aji ñépp ñu wuyu woon insha allah duñu dee lu dul dañuy aji képp ku wuyu woon woote ibrahima boobu insha allah bala ngay faatu yàlla dina def nga aji ndax yow da ngaa wuyu woon mu ngoog su ko defee yàlla tabaraka wa taala ne nit ñi danañ sotteeku danañ ñëw jóge ci gox yépp ñii di war ñii di dox xoolal tey bu aj jotee di gis avion yi di naaw di yóbbu nit bateau yi di yóbbu ay nit oto yi di yóbbu ay nit lépp loo xalaat ci lu doomu aadama di war pour tukki wala pour doxi soxlaam nit dina ko war ñëw maak am na sax ñuy doxal seen tànk ndax xam ngeen ne ay nit jóge nañ Sénégal dox ba maak dem aji wala ah wala loolu amul mu nga am na ñoo xam ne ñoo dox dem aji sa papa ci la ko sa maam gis nga waa léegi su fekkente ne ñooñu dañoo doxoon su fekkente ne ñooñu dañoo doxoon dem aji ñun ñu ne mënuñu dox dem aji te ñooñu doxoon ngir mi ci pas-pas bi la nekk ci pas-pas ci pas-pas bi la nekk ci pas-pas bi ñee ñoom dañoo gëmoon ne waruñu dee dajeeg yàlla dañuy dox comme wér nañu rek danañ dox ak seen tànk mu dem te pourtant jamono yooyu mu ëppoon danger léegi la sécurité bi ëpp léegi la yoon yi gën a yomb parce que léegi mën ngaa jóge def trace Sénégal Mauritanie Mauritanie Tunisie Tunisie Soudan Soudan Égypte Égypte Makk waaw est-ce que yàlla duñ ko laaj ëllëg léegi lu tax ajumu leen ñu ne yàlla amuñu woon xaalis mu ne lu tax doxu leen seen tànk ndax am nañu doxal dëkk ba nga dëkk am nañu ko doxal yal nañu yàlla defal sutura moo tax mbir yi yal nañu yàlla defal tawfiix ñu xam ne ñu njëkk ñi mënuñu diirante ak ñoom mbagg parce que pas-pas lañ ñu gën a wér pas-pas lañ ñu ëpp léeg-léeg ci suñuy waxtaan wala ci suñu nekkin wala ci suñu dundin ñu critiquer ay nit waaye est-ce que ñooñu gënuñu ñu dëgër pas-pas est-ce que ñoo xam ne situation yi ñu doon dund ni mu mettee ni ñu leen doon xeexee ak ni leen tubaab bi doon sonale te teeru da ngay dégg ñu ne dox nañ aji wala jàpp nañ leen tëj wala nangam ak nangam te lan moo doon taxu ñu tëj la sénégalais yi dama wax démb benn waaye ma ne ko am na sëriñ yoo xam ne bu ñu meloon nii sénégalais yi mel kon tubaab bi du leen jàpp d'accord ngeen ci loolu nii sénégalais yi mel tey su ko sëriñ yu mag yooyu meloon kon tubaab bi du leen jàpp lu mu leen di doy kon la moo tax tubaab bi doon leen xeex lu tax tubaab bi doon leen jàpp ça veut dire que tubaab bi xam ne ni ñii moo leen bàyyee dina am lu ñu fi taxawal te loolu du nekk du neex tubaab te ñun dañuy taxaw tey di xeex loolu moo tax il faut ñu def ndànk ñu bañ a jaawale ñii ak ñee koo fekkewul dundam xamoo lu mu doon def maandul ci mbiram yàlla moo ñu wax ci alquran ne ñooñu tilka ummatun qad xalat laha ma ñooñu wees nañ lañ doon def dem na bàyyi leen yàlla yow dalal sa bopp ak ñi nga bokkal jamono ñii nag loo ci gis ci mu wuute ak alquran ak sunna wax ko am na yu bëree bëri yu ñu ci samp ñeñ doon wax sax démb am na ñu ëpp ñoom sampuñu ko ay nit ñoo ko fi samp ngir am lu ñu dundee am na sax ay nit ñoo xam ne bind nañ ne ñoo ñoo ko bind fekk ñoo ñu bind ñu fu bëri man jàng naa ci benn téere boo xam ne benn su ma ko doon jàngal dafa ne ma attention nag téere bi na nga xam ne sëñ bi bind ko am peut être mu ne ma wallahi sëñ bi bind ko wala loolu waaw loolu nit nit bu mu ci waaru yaa ngi jàng hadis ñu ne la daif wala jàngu leen hadis ñu ne la daif lan mooy hadis daif parce que dafa am bu wér bu wérul bi wérul yonent bi wax ko kon kon bu fekkee ay nit ñoo sosal yonent ma samaag nag sosal ñu ndaw ndawaan ñi kon loolu dañuy def ndànk kon Ibrahima a ngi nii alayhi salaam yàlla nangu ñaanam yàlla jox ko ndigal ne ko wooteel fastajaaba naas li haza nida nit ñi wuyu di sotteeku di jóge fu nekk ci àddina bi di dox di war wa kaana alxajju qabla alislam wa kaana al arab yahujjuuna ila albayt allah alxaram bu kenn yaakaar ne aj léegi la commencé aj ñëw na avant l'islam ndax ibrahim ibrahima moo fi jiitu woon yéen jàll muhammad waaye na ngeen xam ne aj ba ibrahima tabaxee kaaba gi la commencé arab yi dañ doon aj avant yéen jàll muhammad di ñëw mais bi mu ñëwee dafa changé aj bi ndax góor ñu jigéen ñi daawuñu sol yére yaramu neen lañ daan def di wër kaaba yàlla ne wa ma kaana dua duaahum inda al bayt illa mukaan wa tasbiya jàngeen ni dañ daan wër ci kaaba bi di vali di yuux jigéen ñi saraxoole góor ñi di vali di def yaramu neen yeneen yàlla Muhammad ni ñu ñëwee lislaam ñëw la saada yooyu yëpp beneen bi dañ daan indi ay xërëm di ko dugal ci kaaba ji ba mën a di aj waaye bi yeneen yàlla Muhammad ñëwee la tatal xërëm yooyu kon arab yi ñu doon aj wa asbaha alhajju ruknan min arkaani lislam alxam yéen yàlla muhammad ñëwee la orienté waat aj bi ginnaaw ba ko yàlla joxee ndigal mu defaraat ko waaye mu def ko juróomeelu ponk ci ponk lislaam yi arkaanu islam ñaata la ponk lislaam ñaata la ponk lislaam juróom la ban moo ci njëkk seede na yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni ñaar taxawal julli juróom ñett woor weeru koor ñeent joxe azaka juróom muy aji màkk gis ngeen loolu mooy ponk lislaam mu ne wa nahnu naral na naral muslimina yatawaaraduna ila màkk instant bi ñuy ñu ngi gis nit ñi ñu ngi préparé sax di dem màkk ah di jóge fu nekk di dem màkk di bàyyi ko ci gox bu nekk dem di def seen juróomeelu ponk ci juróomeelu ponk lislaam yi nee na histoire musul xam musul bind nit mbooloo mu tolloog li aji ci àddina ne loolu amul ah xam nga am na ñoo xam ne li leen sonal ci seen jamono dañuy concurrence ak kaaba gi di concurrence ak aj Sénégal ngay gis ay façon jaamu yàlla yoo xam dañ koy concurrence ak kaaba gi ci mbooloo mu bari loolu dañuy sonal seen bopp rek kaaba gi du million moo fay ñëw de ay million ñoo fay teew ay million te xam nga lu yéeme nit ñi dañuy dem màkk ba ñëwaat doo gis oto sax bu laal nit waxuma kenn dafa dee de te dee moom ci loxo yàlla la nekk bu toogee sa biir nekk sax dee waaye gis nga yi am fii ci ay reewande ci ay jaaxaan da ngay dem foofu ba ñëwaat doo ko gis parce que nit ñi yàlla moo leen tax a jóg lu toll ne aj ci mbooloo amul fenn ci àdduna bi match coupe du monde sax coupe du monde am na nit wala amul nit coupe du monde stade dina fees wala du fees dina fees waaye li daje aj moo ëpp li teew coupe du monde li daj ci aj amul fenn ci àdduna bi fu mu am ci aj rek la mën a am beneen bi mooy ci mbooloo yooyu di bëri yenn saa yi benn dëkk dong la ay nitam di ñëw wala ñetti dëkk ñaari dëkk wala coupe du monde du dëkk yëpp ay dem de am ñoo xam duñ dem mais aj amul fenn fay wax ci àdduna bi lu nit dina fa jóge aj amul fenn fay wax wax leen benn dëkk boo xamante ne kenn du fa jóge wax leen ko amul fenn ci àdduna bi moo tax boo fa demee façon nit bu nekk ngay gis ci àdduna làkk bu nekk ngay dégg nit ñi di ko wax fu nekk nit bàyyeekoo fa pour aji loolu lislaam dong moo ko am mbokk yi nombre bu toll boobu bu toll noonu di jaamondoo benn yàlla bokk benn jubluwaay di jaamondoo benn yàlla bokk benn jubluwaay bokk benn tur seen tur mooy lan muslim lan mooy seen jubluwaay jaamu yàlla amul amul fenn mbooloo moo gis ñu daje fenn ku nekk am nga lu la indi waaye kii aji lan moo ko yóbbu damay jaamu ji yàlla benn yàlla boobu la ñuy jaamu foofu ci benn place bokk benn jubluwaay bokk benn mbooloo ñëpp weex tàll sol benn yére lépp a weex amul kuy sol yére bu ñuul bi su arafa bi su minan amul kuy yoos yére bu weex ku yére bu ñuul bi su musdalifa amul kuy sol yére bu ñuul tout le monde góor ak jigéen lépp weex ñëpp di jaamu benn borom benn yàlla di ko ñaan loolu lislaam rek moo ko mën waaw islaam rek benn tontu benn wax la ñuy wax labbayka allahumma labbayka ñëpp ñoo koy wax labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak lépp benn baat bii la yow yàlla wuyu nañ la labbayka allahumma labbayka yow yàlla yow rek laa wuyu si wuyu ma kenn gis nga yow rek labbayka la sharika lak wuyu si naa la kenn warulaa bokkaaleeg leen laa sharika lak amoo koy dendal amoo koy bopp suñ lay bokkaaleel benn baat la sharika laka labbayk nga dégg ñu ne inna alhamda wa ni'mata laka inna alhamda naka cant wa ni'mata laka ak xéewal yow rek yaa ko moom cant ak xéewal yow yàlla yow dong yaa ko moom wal mulku ak nguur gi yow yàlla yow dong yaa ko yeyoo la sharika laka kenn waru laa bokkaale kon wala lii rek la ñuy wax lii rek oto yi moom la ñuy wax avion yi nekk ci kaw nit ñi nekk ci avion yi di armal di ñëw di ko wax bato yi nekk ci biir géej nit ñi armal di ko wax ñi nekk ci oto yi nekk ci kaw nekk ci biir oto yi armal di ko wax ñi nekk ci mbaam yi ñi nekk ci fas yi ñi war gëléem yi ñi war moto yi ñi di dox ak seen tànk ñépp benn baat bi la ñuy wax jëfi di riir da ngay xalaat ne yowmal qiyaam moom billahi lazi la ilaha illa huwa benn baat ñépp di riir allahu akbar nga xam ne yàlla moo màgg yàlla rek mooy kenn subhanahu wa taala mu ne miatu uluuf min annaas yaqifuuna yowma taasi min zilhijja miatu uluuf lu tolloog ay millions yi millions yi nit ay junni junni junni junni nit ñooy taxaw bisu arafaat bisu juróom-ñeenteel mooy yowma taasi ci zulhijja ci weeru aj fi kulli aami yëpp at di ardi arafaat ci benn place bu ñu naan arafa yaqifuna wa qad xalau malabisahum yëpp a ngi taxaw simmeeku seen yére kenn du sol yére góor du sol yére ñaari malaan woot benn armale benn taraxlaayoo benn amul tubéy amul kawas amul mbaxne amul mbubb wodd taraxlaayu tout le monde ñëpp amul président amul ministre amul député amul imam amul xalif général amul amul ñëpp amul roi amul dara ñëpp ñëpp laa wax ak koo xalaat rek dugal naa ko ci woddu lay def taraxlaayu mbalaan ya ci place Arafat di ñaan yàlla tabaraka wa taala jublu yàlla ñoom ñëpp di ko ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa Arafat laaj bi tàng jë waaye place bi bërëb bi yëpp arab Ibrahim mu ne Jibril dafa nga ni yàlla est-ce que xarit du yàlla moo ne woon sama xarit la mu ne waaw mais dafa nga ni ko est-ce que xarit dina rey xaritam boo demee nga laaj yàlla question boobu Jibril départ ñëw ci yàlla ne ko sa xarit bi nee na est-ce que xarit dina rey xaritam mu ne boo demee nga ni ko ndax xarit dina bañ a dem ci xaritam atara xalilan yakrahu liqaa xalili du sama xarit mu ne waaw mu ne woo naa kon na ñëw xarit kay bu la sa xarit woowee nooy def bu la sa xarit benn nee na invité naa la reer nooy def da ngay reeri wala doo reeri bu la ne invité naa la añ da ngay añi wala doo añi bu la invité ndékki da ngay dem wala doo def da ngay def kon nag mu ngoog yàlla ne Ibrahim est-ce que xarit dina bañ a dem ci xaritam jibril boo demee nga indi ma sama xarit mbokk yi ibnu kasir nee na rahimahullah wa qad maata saara qablahu bi qariyati Ibrahim lu ko jiitu avant Ibrahima di faatu soxnaam bu tudd Saara moo njëkk a faatu ci benn dëkk bu tudd Ibrahim aw Xibrun allati fi ardi Kanaan gox boobu Saara faatoo di soxna Ibrahim gox boobu mu ngi nekk ci benn place bu ñu naan Kanaan Saara bi mu faatoo amoon na téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom Saara ci la waa ahlul kitaab wax Ibrahima naqarlu am métit ci deewu Saara yemu ci loolu mais dafa dem jënd benn xunt xunt bi mu ngi ko jëndee téeméeri misaal misqaal loolu ñu naan téeméeri dërëm téeméeri euro téeméeri diinaar misaal boobu Ibrahima jëndee na mbir mi téeméeri dërëm ci jamono boobu xunt moom mu daal ne suul leen fi saara foofu lañ ko suul ci xunt boobu moom Ibrahima bu mu deewee foofu lañ ko suul Isxaaqa bi mu faatoo foofu lañ ko suul ak yeneen yi jigéenam yeneen doom yu jigéenam moom Isxaaq foofu lañ leen suul ci xunt moom nee na fa lañ suul Ibrahim ci wetu soxnaam boobu nga xam ne moom mooy saara ci li waa ahlu kitaab wax waaye Ibrahima balaa muy faatu dafa feebar suma marida Ibrahim alayhi salaam feebar na comme ni mu nekkee sunanullah fil kawn li ëpp ci doomu aadama yi yàlla tabaraka wa taala day def sabab balaa ñuy faatu am lu leen dal ci ay feebar wala yenn noonu la dalee yonent yàlla Muhammad bala muy dee dafa feebar noonu la dalee yonent yàlla Ibrahim bala muy dee dafa feebaroon bi mu faatoo ñu daal di koy suul ci xunt moomu ci wetu soxnaam bi tudd Saara ñan ñoo ko doon suul Ismaayil doomam ak Isxaaqa doomam ñaari doomam yooyu ñoom ñoo ko suul salawaatullahi wa salaamuhu alayhim ajmain yàlla na jàmm yàlla tabaraka wa taala nekk ci ñoom yonent yooyu yépp Ibrahim Ismaayil Isxaaq ñoom yépp yal na leen yàlla yërëm dars bii di ñëw incha allah ñu ngi jël ak durus al mustafada min qis min al qissa mooy lan la ñuy jëriñoo ci dund yonent yàlla ibrahim su ko defee ñu daal di dugg ci beneen yonent bu bees bu tudd luut alayhi salaam asalaamualeykum wa rahmatullah